ñu ngi am mbégte dalal Diegui Diop Fall directrice euh, promotion des droits et de la protection des enfants ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci plateau matinalu Rewmi FM tey. ma sœur maa ngi lay nuyu maa ngi kontaan tey jii di wax ak waa Rewmi FM ndax nag waa Rewmi fi lañ ma attaqué woon defal ma fi article boo xamante ne ma dara waaye nag dam ak nangu démocratie ak nangu liberté d'opinion moo tax ma nangu tey ci ngeen woo ma ma waxante ak yéen may kontaan ci mois de mars bi ngay jigéen di jigéen bu mën góor jigéen buy xeex saa jigéen évoluer ci milieu boo xamante ni yombul mooy milieu journalisme comme ñun milieu bi ñu nekk muy milieu politique ce sont des métiers yoo xamante ni c'est dédié aux hommes waaye ñun du kenn duñu yam naa ni liñ ci war dinañ ko ci def mhm. donc je félicite à toutes les femmes du Sénégal mhm. jéegi ñu am mbégte dalal la euh, ngir lu bari waaye dooree sargal la ndax euh, ci week-end bi da nga coordonné loo xam ni euh, lu doy waar la muy nigérian yi teewoon Sénégal ñu bari doon yelwaan ci mbedd mi àndoon seen réew gannaaw organisation boo xam ne def ngeen ko ci est-ce que mun nga dellusiwaat ci mbir mi na naka ngeen ko organiser ba delloo ñooñu seen réew. waaw ak xol bu metti la boo xamante ne dund naa ko waaye ma ciy amaale tuuti mbégte mbégte bi ma ci am mooy damaa kontaan ma mën a rendre service à la communauté damaa kontaan ma mën a liggéey pour l'état du Sénégal dama kontaan pour ma liggéey pour sama ay ñoñ damaa kontaan pour ma mën a liggéey sama ay frères et sœurs africaines et sentiment boobu mënuma ko expliqué nit tey jii dama feebar ma wér trop ndaxte ay fan ay fan ñi ngi nekk ci yëf yi waaye kontaan naa lool te mënuma delloo njukkal président Macky Sall sama waxu dem mooy sama waxu tey tey jii bu fi yemoon tey mu neex lool ci man parce qu'il m'a donné l'opportunité ma mën a dund li nga xamante ni moom laa nekk di dund nii tey dem nañu ci mbedd bi gis nañu am na ñu fa nekk ñi fa nekk suñu ay doomu ndey lañ suñu ay doomu bàyyi lañu parce que ay nigérien lañu Niger Niger képp ku fa nekk di tailleur sénégalais nga kon nag am na benn reportage bu ñu fa defoon ñu daal di jóg ñu jël xale jël mag jël ndaw génne leen ci mbedd bi parce que nag c'est le ministère de la famille au-delà la protection des des enfants mooy ñu a xool kaaraange xale yi bi bi nga xam ne Ndeye Saly Diop Dieng moo ko dirigé mooy protéger lépp luy famille ñu ànd ka nag ak le gouverneur de la région de Dakar mi nga xamante ni moom moo dirigé loolu ànd ak nag lim ko lépp loo képp koo ne da nga nekk service ministère de la justice ànd si ak ministère de la santé et de l' sociale ànd si nag ak ki nga xamante ni c' est le ministère de l' intérieur bien sûr à travers le commandement territorial et ensuite la police de ce pays ñu kontaan lool ci mission bi ndax jëlee nañ fi lu mat mille et quelques personnes premier jour bi dañoo def li nga xam ne recensement catégoriel catégoriel la mooy dañu doon bëgg xool rek ñaata xale moo nekk ci mbedd bi ñaata mag ñaata jigéen ak ñaata góor premier jour bi rek jël nañu quatre cent une personnes deuxième jour bi ñu jël quatre cent quatre vingt une personnes ñu daal di leen dugal ci ay centre def leen foofu li ñu ñoroon mooy génnee ñooñu ci mbedd bi li ñu ñoroon mooy génne leen ci sedd bi li ñu ñoroon mooy génne leen ci xiif bi de la dignité humaine li ci des nag c'est la diplomatie li ci des nag c'est la sécurité li ci des nag c'est la sûreté de l'État ñoom ñoo décidé le Niger en partenariat avec l'État du Sénégal ndax nag président Macky Sall moo jiite Union africaine fi mu nekk nii mu ñu waxtaan ñu indi avion premier jour bi c'était le jeudi deuxième jour euh, ñu dajale jeudi ñu yóbbu leen vendredi ñu jël avion yóbbu leen ñu yóbbu 538 personnes samedi bi tam ñu dajalewaat yóbbu 538 personnes ñu kontaan ci lool torop donc nag lii mooy activité yoo xam ne mën nañ ko ci fin wu weekend bi alors euh, naka ngeen def ba dajale leen bañuñu woon est-ce que amu leen ci woon ay gàllankoor naka naka ngeen defee liggéey bi. déedéet bañuñu woon premier jour bi dañoo dajale fukki kaar ak juróom ñu njëkkee canal 4 bi foofu lañ nekkoon foofu rek jëlee nañ fa lu mat 500 personnes bi ñu leen fa jëlee ñu jóge fa le même jour ñu ngi pare jour boobu presque ay 5 heures du matin ñu d au niveau quatre cent quatre vingt et une personnes bi ñu jëlee foofu ñu yóbbu leen centre Gindi centre indi Gindi daal di jël quatre vingt et une personnes ñu jógee foofu ñu yóbbu leen centre Kër Anat Kër Anat nag sami social ñooñu si jàppale ñu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ñoom itam ànd seeg Enda jeunesse ak RAO bi ñu leen jëlee foofu mu des ñu ubbi nag ay tente ànd ceeg gouverneur ak le préfet de Dakar ak sous préfet bu Parcelles Assainies ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu def foofu ay tente ànd Croix Rouge dugal foofu lu mat six cent personnes nit ba pare aéroport nit ñi ñoo dégg ni am na ñu ñu yóbbu ñoom ñoo jël seen ay bus indi seen ay taxi wàcce seen bopp ay góor ak ay jigéen ak ay xale ñu jox leen ay couche jox leen ay ndox ànd seeg nag division direction de la de l'action bien sûr sous le lead du, du ministre de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr jàppale ñu bu dëgër taxawuñu bu dëgër samedi bi dañoo ñëw aéroport Yoff ndax premier jour bi aéroport AIBD lañ leen woon amoon na hangar mais deuxième jour bi dañoo ñëw aéroport bi aéroport militaire la au nom de la sécurité amuñu woon fu ñu leen def Abdoulaye Diouf Sarr ubbil ñu buntam Abdoulaye Diouf Sarr taxawuñu Abdoulaye Diouf Sarr jàppale ñu ñu dugal leen respecter seen dignité bu ñu amee ay besoin ñu dugal leen ci ay toilettes lépp lu ñu soxla ñu defal leen ko respecté nañu seen droit respecté nañu la dignité humaine lépp loo xamante ne def nañ ko daal jàppaleen ñi nga xamante ne suñu ay doomu ndey lañu sunu ay doom baay lañu rawatina ay xale lañu ndax 538 boo jël rek presque 400 yi ay xale lañu. kon xale yi ci gënoon bari. xale yi ñoo si gën a bëri te de zéro à cinq ans xale yi ñoo si gënoon bëri lool lool dañ doon wut ay couche wut ay meew di leen defal ay goûter di leen jox ay soow parce que nag lii ku mu dawul sa yaram rek dangaa jurul li ñu intéressé woon c'est le respect des droits li ñu intéressé woon mooy xale yi jóge ci sedd bi li ñu intéressé woon mooy xale yi jóge si xiif jóge si mar li ci des nag ñoom ñoo d'accord donc comme on accord rapatrier seeni ay nit alors ñu bëri waxoon nañ ni trafic d'êtres humains daf ci am maanaam jàpp nit xëy na di ko def comme jaam di ko liggéeyloo ak nu euh, mel est-ce que mun nañu wax ne loolu am na si mbir mi. dëgg la am na ci parce que dangay ngay gis parent boo xamante ne dafa taxaw ànd rek lu mat 30 xale xam nga ni juru leen kuy ñëw dangay ngay indaale sa sa sa doom càmmiñ wala nga indaale sa voisin. lu si woon dëkk bi ñu dëkk moo tudd Zender. Zender dëkk boobu ku fa nekk da ngay yalwaan booy takk jabar sax danga koy wax dama la takkee da ngay yalwaan soo yalwaanul duma dama duma la takk donc nag ñoom yalwaan si aadala la bokk. léegi nag dañoo dégg ni Sénégal day saraxee parce que libi lañ commencé ak Algérie. Mm. bi ñu jógee libi ak Algérie foofu loolu amatu fa ñu dàq leen ñu dem Côte d'Ivoire ñu dem foofu ñu ni leen Sénégal ñëppay saraxe ñuy ñëw par fukk di ñëw par juróom di ñëw par ñaar fukk bokk ci décor day dem ba mujj bi nit ñi duñ leen gaaw a ràññee ba ñu bu ñuy leen di ràññee fekk bëri nañu am na trafic am na exploitation de l'enfant am na loo xamante ni mendicité la loolu yëpp ñun dañ koy xeex loolu moo tax ñun ñu jug dem seet ci des nag du suñu liggéey police dafay def liggéeyam brigade des mineurs dafay def liggéeyam ñu ngi leen di bàyyi ñoom ñu continuer seen liggéey parce que am na trafic loolu moom bu wóor nañu. d'accord alors euh, Sénégal nag balaa ñii di ñëw tamit amoon nañ jafe-jafe ci yelwaan bu tar gi rawatina xale yi nga xam ne ñoom lañ tuddee woon les enfants de la rue ñuy di lekk ci mbedd mi di fa fanaan di fa defee seen lépp ministère bi nga bokk di de la famille euh, initié woon ay opération de retrait loolu fan ngeen ci toll. waaw madame Ndeye Saly Diop Dieng defoon na ko ba retiré 6538 xale ci mbedd bi donc 80 pour cent yëpp woon nañ leen seen kër dañ leen yóbbu ci ay centre bu ñu paree identifier leen delloo leen bu ñu delloowee seet la réinsertion socio-économique ndax bu dul loolu dañuy ñëwaat loolu tam lu gudd la moo tax sax madame Ndeye Saly Diop Dieng a un projet de construction d'un centre d'accueil national loolu ñu ciy lancer un appel à tous les partenaires techniques et financiers ñi ñuy jàppale di ci lancer un appel ñu gën ko dooleel moom Ndeye Saly ñu mën a atteindre les objectifs idoines léegi nag retiré woon nañu loolu bi ñu retiré loolu seetlu woon nañ ni 198 daf bokkuñu woon Sénégal ñu delloo leen gisaat nañu mbedd bi amaat na ay xale dañuy évaluer avec le gouverneur parce que lii ñuy def ñuy gouverneur moom moo koy coordonné mm. ñu mën a ànd ak préfet de Dakar ñu mën a commencer commencé waat bi nga xamante ni moom mooy li nga xale yi nekk ci mbedd bi madame le ministre joxe na injonction par rapport ak loolu chose qui va être respectée parce que président de la république Macky Sall moom moo santaane loolu donc d'un moment à l'autre on va recommencer nos opérations de retrait mais ce qui importe plus c'est la réinsertion socio-économique mooy xale bu ñu jëlee ci mbedd bi yóbbu la boo tolloo si jàng ñu yóbbu la nga jàng boo weesoo la nga def formation professionnelle boo waree wuti métier ñu wutal la métier bu

rafet na ndaxte tàmbali ngeen ko sax déjà lan nga jàpp ni moom la ñu war a tënk tee ci bilan wu président Dakar président Macky Sall wér laa koy ñaanal président Macky Sall wér laa koy ñaanal président Macky Sall vision éclairée laa koy mooy xel bu leer te sell ndax président Macky Sall ndamam mooy sunu ndam ñun ñëpp Sénégal président Macky Sall gàcceem mooy sunu gàcce ñun ñëpp Sénégal yal nañu yàlla musal ci loolu delloom ginnaaw wala échec am mooy sunu échec ñun ñëpp parce qu'il le président de la République fii de ak moom moo yor commande yi ko assainissement wala muy lu jëm ci ndox investissement yi mu ci def loolu kon kenn du am foo jaar président Macky Sall car macha allah li mu def si jikko li mu def si jëm li mu def ci lépp loo xamante ne droit la loolu bu ko président ma Sall bu ñu ko doon xayma kon président Macky Sall kenn du mën a wax ni lii ak lii la parce que loolu lu ñu mënul duut baaraam te ñu ñu teg seen bët lépp loo xamante ni santé la lépp loo xamante ni moral la lépp loo xamante ni nit la ci nekkinam ci jikkoom ak lu ko avancé président Macky Sall dugal na ci loxoom. je veux nommer li nga xamante ni CMU bi la ci côté santé bi Kédougou am na hôpitalam Tamba am na hôpitalam Kaffrine am na hôpitalam Touba am na hôpitalam Agnam am na hôpitalam car macha allah loolu bu ko fi fekkoon kon dañu daan avancé président Macky Sall foo dem gis nga pon mbaa nga gis pon waa VDN bi waxuñu dara lépp loo xam xamante xoolal fu Foundiougne bi xoolal waa Marsassoum xoolal Gambie léegi nag ñu ngi wax pont Rosso tubaarkàlla car macha allah waxuma la waxu autoroute Ila Touba bi. président Macky Sall xool li mu defal enseignants yi dans l'histoire de l'éducation kenn mus koo gis jël salaire yi yokk ko lépp loo xamante ni da nga ko doon am muy 75000 indemnité logement mu def ko 100000 lépp loo xamante ni fukki fanweeri poñ woon ak ñett. mu daal di da accepté 32 poñ yi ñu bañ ni na leen defal alignement mu yëkkati presque ay milliards dugal ko seen biir salaire daal di leen yokkal seen am ba pare dindi la ne ko mën a fay foofu ñu jël 100 milliards dugal ko ci loo xamante ne si salaire yi la ñu indi li nga xamante ne moom moo tudd i solde lépp loo xamante ne mooy nekk nu fonctionnaire wala agent de l'État président Macky Sall jël na ko point A yóbbu ko point B président Macky Sall def li gën a metti mooy mu yokk salaire u retraité yi salaire u ñi nga xamante bees ñu war ko mën a jot président Macky Sall du ma yem foofu damay dugg li nga xamante ne c'est l'armée yokk li nga xamante ne mooy li armée bi war a mën a am si nga xamante ne seen jumtukaay la mu ne déedéet yemuma foofu assemblée nationale ñu dugg foofu mu yokk le nombre de députés jël waa diaspora bi teg leen place fàttaliku leen ndax nit ñi dañ leen fàtte woon ñu ni déedéet Covid bi ñëw dal ci kawam tey jii président Macky Sall bu defoon un bilan négatif sax ñi ñu waruñu ko wax dara waaye Covid bi président Macky Sall ni képp ko am courant doo fay président Macky Sall ni en plus des bourses sociales damay fekk sénégalais bu nekk fa nga nekk au nom de l'équité ma daal lay jox ay ration président Macky Sall li mu def te kenn mënu ko dut baaraam moo ëpp téeméer ju noonu que yi ngay gis si comme li ma au nom de l'équité lan mooy état ndax lu tax président Macky Sall nee na accès universel à l'eau l' accès universel à l' képp kuy jigéen am nga baat fii ñun mën nañ joxe suñu nationalité léegi ñun mën nañu fexe ñu fay suñu doom fayeeku mën nañ defal imputation suñu ay doom ñun am nañu gouverneur jigéen jigéen ñi yokk nañu biir armée am nañu ay colonel jigéen am nañu jigéen bu nekk diplomate pour la première fois dans l'histoire de ce pays ñu am jigéen boo xamante ne dafa nekk ministre de souveraineté kaar ma soeur tubaarkàlla kaar macha allah. waaye opposition bi ñu ne. président Macky Sall na lu mu war a def. dañ koy ñaanal gudd fan. ak léegi bi ñu ne wàllum démocratie moom dañ caa dellu ginnaaw ba xaw nërmeelu. wàllum justice tamit moom boppam opposant yi moom fu ñu toll tëjëk tijji loolu loo cay tontu. li ma ciy tontu mooy c'est la première fois dans politique de ce pays ñu gis opposant yoo xamante ne ñetti fan ñeenti fan bu ne ñu marche ku ko attan. xanaa les forces de défense de sécurité. loolu moo leen tax a jóg xanaa loolu moo a jóg marche dina ndax xam nga boo nee marche nga ni fii laa bëgg jaar nañu xoolaat société civile lan mooy liggéeyam est-ce que société civile xeex ak gendarmerie kese ñu di leen tëj mooy a nekk à équidistant xew ndax mu mën a am une vision éclairée de la chose waaye yow nga ni yow da ngay yor yoru politique yor jikko politique nañu am fit société civile bu am jikko politique nga dem fit nga dem ubbi ji parti politique que nag c'est pas à tous de s'engager le plan politique mbubboo mbubb société civile bu ñu waxee nga sànni lacrymogène euh, policier yi di xuloo ak ñoom ak di xeex ak ñoom jël li nga xamante ni parti politique yi ñoo ko def politicien nga di ko def amal fit nga dem ubbi ji parti dama ni fii rek Sénégal laa gis trois cent 365 jours cent cinq jours les gens passent tout leur temps à faire de la politique ndax dama ni chaque jour marche deux jours trois jours marche président Macky Sall li mu fi toog may leen ko Rwanda mi ñuy bàkkoo taxaw di ko wax ku lapp-lepp mun la ràpp ci biir kaso bi sénégalais nag du apprécier lu mu mën a yor mais duma maas nun bi dama naan certain ndax nag seen intérêt la ñuy jël ak seen propre agenda am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi mbubboo diine gi taxaw naan dañuy ay sàmm jikook dañu koy aar ndax ña ngay xaar la xalaat assemblée nationale mi ngi ñëw bëgg nañ fa am ndombal tànk député nañu am fit ubbi seen ay parti politique ndax ku mu neex ku ne nga war ko mën a def da laaj baat rek ñu jox la ko fii la ñu gis sur le plan de la démocratie ñu organiser des élections ñu ni sàcc nañ ko ñu tega tegaat ci quelques mois ñu organiser waat des élections locales gisoo leen ñu ni ñii ndax gañe nañ Dakar gañe nañ Ziguinchor gañe nañ cees ñi ngi nag ubbi suñu nopp di leen déglu ba élection législative yi ñëw ba kenn ni élection dañ koy sàcc Sénégal ñoom nag dootuñu ko fi ñemeeti wax dañ koy nangu ndax nag local yi nangu nañ ko teewul si 556 yi collectivité locale yi 70 donc képp rek kese la ñu gagné. Mm. waaye comme que critiqué wuñ ko ñu ngi toog nag di leen xaar ba ñu ne démocratie amul ci dëkk bi. waaw législative yooyu nga wax euh, légi euh, dañ ciy def parrainage bi gars yi tamit jàpp ne loolu dellu ginnaaw la bu dee ci wàllu démocratie ndax dafa am ñoo xam ni dañ leen a bëgg a segg tegee ne euh, ndax xëy na ngir dal am waruñu woon xoolaat loolu. segg fu mu amul du neex. Mm. démocratie segg la àndal. suffrage universel direct segg la suffrage suffrage universel indirect segg la lii ñuy def nii indirect la parce que même c'est même pas indirect dañ ñuy parrainage soxna si képp koo xam da nga war a dem élection war nga am 42 000 représentants dans les bureaux de vote tant au niveau national qu'au niveau international soo mënul am 42 000 personnes looy amee parti soo mënul am bureau de vote bu nekk nga am ku la fa looy doyee nekk élection yi ñu génn y a que deux coalitions ñoo mën a am loolu dans le territoire national et sur le territoire international et sur au niveau des bureaux internationaux nañ ko xoolaat que élection ku koy organiser ay moyens am doole loolu nag mënuñu ko samba booy bu jug rek ni kaay jox ma dëkk bi wala damay bokk ci élection yi président Macky Sall du ko nangu 58 ñoo ko jox voix la première fois dans l'histoire politique koo xam ni éliré nañ la noonu nañ ko bàyyi mu doxal li muy doxal te lii c'est une demande sociale ñi ñi mënuñuy rang suba ba jant sow pour di dugg ci ay bureau de vote lool voter dafay tax taux de participation bi du mën a élevé ku sa bopp daal demal ci parrainage boo paree nga ñëw ñu langue bi mi ngi fii ñun ñu ngi lay xaar ndax 2012 ba tey élection yi moom moo koy gagné. jërëjëf Diégui Diop Fall yow yaa jiite euh, direction promotion des droits ak protection des enfants amoon nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM. di bég doon mere réew mi waaye mereetuma la <laughs> ndax man su ma la gisee yow damay daal di kontaan di wax jigéen ñi nañu jóg nañu takku taxaw temm ndax bu leen leen kenn xoqatal bu leen ragal dëkk bi kenn moom ko politique bi kenn moomu ko langue bi kenn moomu ko ça n'appartient à personne il faut s'engager nga mën a wax li sa moroom mënul wax nga mën a doxal sa moroom lu mu mënal doxul nga mën a àggale sa loxo fu mu mënul àggale loxoom loolu si loolu laa leen diwoo woo yor tablette loolay politique sax yor tablette yor téléphone portable di critiquer dafa yomb terrain bi kenn xamul lan la yow xam nga ko fekk nga ma ci plusieurs fois doo tal sax def crayon doo tal def rouge à lèvres parce que li nga wax moom moo la ñor teewul bu tagal jotee nag ñu defal suñu tagal ba mu baax sànni ko fay dama ni bu ñu dellu ginnaaw ci li ñu nekk nañu wax ba ñëpp dégg suñu baat bu ñu sonn te man du ma sonn ku nekk li nga engagé wu taxaw ci temm ba ñi ñi xàmmee la ko kuy xalam na ca jaayo barke bi yaay borom mm. dëkk bi góor ñi moomu ko moomuñu ko politique bii góor ñi kese moomuñu ko la critiquer bu kenn ragal def erreur bu kenn ragal wax loo xamante ni dëng na boo ko defee tey mu dëng suba nga corriger gannaaw suba mu jub ba kenn dootu la wax ndax nag loo doonul taalibeem doo doon sëriñam. leer na